mu mel ne jamono ji bëgg a màggal gisoon nañ la ci wàllum ubbiteeku hôpital bi ñu am ñu wax sax ñu ne da nga bokkoon ci ñi nga xam ne dañu bëggoon a euh, maanaam teeru président ci geneen anam ndax loolu tey mën nga ko leeral. mosuma ko def ñu waxu président 2014 laa commencé def ci kër xalif bu mu ñëwoon Dakar xalifa bu Mouride te defuma ko personnellement dama ko def lu woon te ba ci jógee laa ci laa ko baax samay at ëpp na ko. sama responsabilité ëpp na ko sama sama tolluwaay politique ëpp na ko waxuma laa nag fii ci Touba nga xam ne si si euh, mosuma fi saboté ganuk sëriñ bi ci kenn encore mooy le président duma dem ba yaakaar réew mi taw ci sama loxo bës ba ma bokk ci ñaar fukki nii yi ñu fi gën a xam ci senegal man maanaam dama yuuxu président mosuma ko def xalaatuma ko naruma ko ku may déggalit di ko def loolu moom dama waxoon ne rek président de su dee ne mbokkum taalibe la jëm si Touba yi nga xam ne ay mbokki taalibe fi nekk te ba la fee yegg si bu nekk mu ne sëriñ bi wax leen wax leen buñ ma yuuxu loolu laa ne la day gàcceeg taalib mënu koo passé kon ne moom war naa xam ne ñi fi fekk si gëmuñu ne seen taali seen mbokkum taalibe leen fiy fekk si te it comportement wane ne ko d'ailleurs parce que bi mu fi ñëwee it li fi sëñ bi doon bañ def na ko fi muy sëñ bi dafa aaye woon ne bu leen politique. buggu fi benn action politique malheureusement moom personnellement moom def na ko ci defin sax bu ñàkk teggin parce que nag sëñ bi di nga ma baal mu wax nangam dinaa politique ndax président moom parce que sax ci ñàkk ma destem bu ko ne dane man da parce que dane président moom foo nekk foog mu mu politique loolu lu ñaaw loo xam ne mbokki taalibe yi ñaawlu nañ ko trop mbokki dëkkandoo yi ñaawlu nañ ko te waroon naa ku ne bam des moom rawatina nag ginnaaw bu sëriñ bi ne bu leen ko def kon day mel ni kat léegi tuubaax aayewuñ fi politique bi sëñ bi waxoon mais opposé lañ fi aaye te li ci ñaaw mooy euh, su ko sëñ Modou Bousso Dieng defoon danañ ko wax lu ne ci àddina waaye su ko Macky Sall defee dañ koy bàyyi rek mu jàll. waaye jàpp na par ci wàllum politique daf fi am. leer na ndax ba muy wax kay ñu doon tàccu yann mbàkk mbàkk yu mag a nga ca ñooñu xam ñooñu nag ki tàccu am ñooñu dafa am loo xam daal sëñ Tuubaa daal ku amoon fulla la ku ñu respecté woon la ku respectable woon la it ko mas dafa amoon li ñuy wax xëy ba ko mas na ko xool ko indi ko respecté kenn mos ko dégg it ci yooyu ak ci deux poids deux mesures yooyu ba tax na it nit ñi sëñ Tuubaa lañ gëm keneen ku ñu gëm ku nekk sëñ Tuubaa tax ñu gëm la donc kon euh, baax na ñenn ñi nga xam ne am nañoo ak sëñ Tuubaa ak mbokk it ñu ñu mel noonu loolu daal.